bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee ñu ñëwaat ci sunu dars bi nga xam ni mooy dars ijji bi ci téere boobu di muallimul qiraa mu mel ni dars bi moom mooy juróom benneelu vidéo bi ci suma juumul xam ngeen ne kon ñu ngi woon ci boole baat yi baat yoo xam ni ñetti araf la waaye tamit baat yoo xam ni araf yëpp ñoo bokk maas mangoog bu ko defee ci sunu dars bi weesu gisoon nañ boole bi ni muy gën a gaawe bu ko defee kazalika sunu dars tey bi tamit dañuy daldi continuer ba léegi ci lancé boobu ma ngoog ndax jubluwaay bi mooy à chaque fois rek ñu gagner un peu plus ñu gën a am amélioration ci li nga xamante ni nii moom mooy ijj bi bu ko defee comme niñ defoon rek dañuy daldi ñëw ci baat yi bu ko defee baat bu njëkk bi sa ra da sarada xool leen saa nag gis nga buñ koy taqatle bu ñu daggee cat bi gis nga li nga xamante ni nii moom mooy bëñ yi rek moo ciy des mangoog sa ra da sarada bu ci topp sa ra qo sara qo ba ca topp sha ra xa sharaxa ba ca topp sha ra a sharaa bu defee ligne bi ci topp so da qo sodaqo ba ca topp soo da ma sodama ba ca topp do ra ba doraba ba ca topp do ra a doraa ligne bi ci topp to ra xo toraqo to ra da torada to toora xa toraxa to ra a toraa a ra fa arafa azama azama arado arado azala azala adala adala غرف xarafa xarasa xarasa xazala xazala farasha farasha farado farado arado قرض قذف قذف maa ngoog léegi ñu jàll ci li nga xamante ne nii moom mooy page bi ci topp defee bi yoon ñu jël ñaari page akala akala axada axada ma amara sa amara asara asara dahana dahana dafana dafana dafa dafaa léegi nag bu ngeen xoolee troisième lettre bi a la a moom bu fekkente ne dafa féete ci mujjanteel bi walla ci digg bi donc buñ koy bind bopp bi nga xamante ni da daan am ouverture dootul am ouverture day mel ni dañ koy croiser ma mu def benn genre triangle waaw triangle boo xam ni dafay dafay dafay juutu maanaam yaatuwaa gi day féete kaw xataay bi féete suuf daxala daxala za ذهب ذهب ذكر ذكر ذبح ذبح moytu leen nag façon a bi ñu waxoon sànq ñu jaawale ko ak xa gis nga bopp xa bi toujours xa moom dafa conservé waaye ba léegi li nga xam ne mooy kii bu initial am a bi moom moo soppeeku. ذهل ذهل ca suuf za ha da zahada za a ma za ama gis nga a bi ñëwaat na ci forme bi nga xam ne mooy forme bi ñu ko xamee woon parce que li nekk ci kanam taqalowul ak moom mais bu fekkee li nekk ci kanam taqaloo na ak moom rek moo xam ci digg bi la nekke wala ci fin bi gis nga dafay sopp forme dafay daal di jël forme maanaam triangle bu ndaw boobu زجر زجر زحف زحف وجد وجد وعد وعد ولد ولد وهب وهب mango bu ko defee ñu yem foofu incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa